docteur Pascal Oudiane maa ngi lay nuyu. maa euh, Oudiane nga nekk sociologue tête de euh, du département de Dakar de la coalition Jëf Jël Takku Liggéey euh, Sénégal déjà yéen kàddu nga mën a yëkkati ci l'ancien ministre des finance du budget Mouhamadou Moustapha Ba bi génn àdduna lan nga ci mën a wax. waaw waaw Moustapha de euh, tiis la tiis bu rëy la euh, ci Sénégal Sénégal moo ñàkk euh, nit ki nga xam ne dafa yàgg servir dëkkam taxawaay gi war ci liggéeyam mu def ka ba ñëpp mën ko seedee loolu waaw ci ministère ba amul kenn kuy wax beneen baat jëmale ci Moustapha Euh, ba nga xam ne baat boobu du koy du koy naw liggéeyam lépp lu mu jot a def ci ministère bi hmm. waaw wax dëgg yàlla euh, Sénégal moo am tiis donc ñu mel ni moom sax war nañ leen mën a wane euh, leen jàngal xale yi wan leen seeni i mag seen i ñu jot a def ci réew mi ba sax ñuy gën a peut metti ci kaw ñu nekk ay ñu gëm yàlla Euh, mooy ba muy nekk ci ci postam euh, ak Macky Sall euh, amul lu ñu waxul parce que politique la woon ci liggéeyam mais soo xoolee rek lépp lu mu doon def def def ci taxaw temb def ko ba sax soo ko gisee assemblée nationale mu taxaw di défendre budget am da naan kii de liggéeyam mën na ko parce que du du xeex benn yoon lu muy wax da koy teg ci yoon donc loolu dëgg yàlla euh, jar nañu naw maa ngi koy euh, maa ngi euh, ak ko yàlla xare àjjana waa ji boobaak léegi fukki fan ngeen nekk ci terrain bi soxal campagne électorale euh, bu élection législative anticipée du 17 novembre 2024 seen côté euh, ban bilan nga mën a def ci di jours de campagne yi waaw ah, ah li ñu mën a wax mooy ah, campagne bi de ah, mi ngi continuer mi ngi dox di jëmale di jëm ci nit ñi dem ci marché yi dem ci mbedd bi dem ci kër yi wax ak nit ñi wax wax leen sunu mbëbët sunu vision sunu gis-gis ci réew mi waaw daanaka sax. Mm-hmm. du pour ñi xam ne ñun ñooy ñëw bëgg soppi lépp parce que am na ñu fi nekk. muy naam maanaam Pastef ñoo gañ élection yi ñoom ñoo war a proposé dem daal ñu ñu gunge leen mm-hmm. waaw ñu xool ñu leen di jàppale ci liggéey boobu waaw mais pour nga def ko nag ah fu nga am compétence fu nga am mën-mën fu nga am xam-xam loolu yëpp loolu yëpp dafa am solo waaw léegi ñun euh, même ci caravane yi ñu ngi ñu ñuy dégg daañ ko def mais bërewul lu ñu gën a euh, jox importance mooy nit ñi dem wax ak nit ñi parce que su suñu nekkee ci oto yi yéeg ci oto yi bañ a dem ci nit ñi euh, teg suñu musique ba mu foor nit ñi duñu mën a xam duñu àndaale donc loolu yëpp dañ koy bàyyi fële wàcc dem xool nit ñi ba sax euh, suñu ndaw ñi dañuy jël spécimen yi dem toog ci grand place yi ñi di ataaya ñi di wax ñi ñi suñu mënee jël seen téléphone woote waaw mën a ut ay électeurs jëm leen convaincre loolu daal mooy suñu sunu sunu ligne de campagne. Hmm. waaw maanaam lu ñuy ci tubaab. Hmm. à proximité. proximité visite de proximité. Euh, d'accord euh, tey jii amul est-ce que programme bu spécifique parce que tey jii bu ñu waxee. Euh, comme par exemple euh, Tahirou Sarr les nationalistes ñoom euh, seen programme ñu ngi ko focus ci delloo doomi réew mi li nga xam ni ñoo ko moom au lieu ñuy yaatal étranger yi ba ñuy nax saxal sénégalais yi parce que ku mel ni Tahirou Sarr jàpp na ni étranger yi ni ñu mel ci réew mi ëpp na dañuy yàq business su sénégalais yi tey jii ñoom ñu loolu mooy seen bon loo xam ne dañ leen koy ràññee mais tey jii gi yéen seen coalition jëf jël takku wàllu euh, takku liggéey Sénégal lan mooy seen programme bu spécifique boo xam ne mën nañ leen ko ràññee ci campagne bi. waaw ñun de am nañu ay ay xalaat yu bëri réew mi mais wax ne balaa ñoo euh, euh, jébbale xalaat yooyu jébbale yooyu dañu déglu borom kër gi ba pare maanaam borom réew mi ñoom ñooy ñëw nañu ah ñun de. ba leen ñu lii lañ bëgg a def donc projet de loi bi lañ andi loolu mooy liggéeyu député liggéey bu njëkk nag waaw su ñu joxee document yooyu ak projet yooyu ñu mën ko saytu ah ñu ñu xool nag lii dina am amal njëriñ réew mi donc pour nga def ko nag mooy li may wax lu ñoom xam-xam borom mooy def loolu mais doo ñëw rek ne ah man de naa def nangam te ki nekk ci bopp réew mi dégluwoo ko waaw donc tant que moom neexu ko yow doo def beneen projet de loi mënul ne waaw donc ci kaw nag c'est vrai que ñun am nañ ay xalaat yu bare ci ci wàllum euh, maanaam suuf depuis année Senghor ba tey dañu waxoon dañ ciy xalaat comme ça euh, loolu mu bañ a nekk ci euh, maanaam ay source pour xeex comme li amoon Ndingler ak feneen ak feneen te te Macky commencé woon na ko mais yeggewuloo yeggalewu ko waaw donc am nañu aussi mëbët ci ndox mi ci ndoxu taw bi ah inondation yi wala ci mën def ci njëgi cher yi ak ci emploi wu ndaw ñi liggéey ba tax na sax même projet yooyu dañu ne il faut mu nekk sax ci espace UEMOA maanaam communautaire ñu xool BCEAO ne muy liggéeyee ak banque yi nekk ci réew yi banque yi ndaw yi parce que BCEAO dafa leen di abal xaalis xaalis boobu mën ko euh, disons euh, def ay nu ngay sax euh, ay pré maanaam mhm. pour jeunes yi maanaam ndaw ñi mën a am ak suñu amee projet ñu dem lépp lépp fa xaalis waaw donc suñu xool loolu loolu banque yi ñu mën di lebale xaalis pour pour ndaw yi liggéey donc loolu yëpp ay projet yu ñor la pour ndaw ñi pour jigéen ñi ñu am liggéey am xëy jigéen ñi aussi soxna yi am financement mën nañ ko jaaralee aussi tam ci banque yi loolu projet la hmm. maanaam xalaat gi bëri na loolu mais nag aussi ñu ñuy wax benn ngir Sénégal dafa toll fi nga xam ne euh, nit ñi dañu bëgg a euh, moom seen bopp loolu kenn mënu ko jenn te ñi nekk ci nguur gi tey loolu la ñu bëgg donc ñëwaat soo ñëwaatee encore wax ne man li li nguur gi bëgg même chose laa bëgg ah man je pense que bon euh, amul kii daal mënoon nga dem rek faral faral nguur gi waaw mais aussi li nga xam ne mën nga ko yokk ci li nguur nguur gi indi loolu la ñuy loolu la ñuy def mu toll ñun mm-hmm. li nga xam ne nguur gi defu ko ñu am xalaat gi mm-hmm. nga ci dolli te ñun dañu jàpp ne Sénégal même suñu waree moom suñu bopp mm-hmm. suñu développement du nekk ñun kese dañuy dem ak ñeneen ñi voilà amul benn réew ci àddina mu dem ci àll ba toog moom kese développé boppam moom kese koo gis am na koo soxla nañu ànd ak na ñi tabax suñu réew mi mën na am koom xale yi am xëy jigéen ñi am financement loolu moo ëpp solo voilà. voilà euh, Pascal Oudiane aussi gis nga ni euh, campagne bi fitna bi bari na euh, wax nga ko sànq sax euh, mais si lu ni mel ñu gis ni euh, bi ñu attaqué euh, cortège u leader u Pastef les patriotes ca Koungheul quelque temps après dañu limogé daq commissaire centrale bu Kaffrine ak commissaire urbain bu Koungheul naka nga gisee mbir moomu le ah, en tout cas dafa daf ñuy xaw a jaxase tuuti parce que euh, après yow euh, su amee ay njiit njiit yi dañu war a xool saytu xool lépp li fi jotoon a am ba pare ñu jël ay ndogal waaw mais soo bàyyee yenn ni nga tànn euh, maanaam li la neex nga dogal ci. am na ñi nga xam ne euh, vraiment duñ ci gis seen bopp. Hmm. waaw li nekkoon sunu bëgg-bëgg daal mooy li jëm ci nguur gi dañuy xool lépp li fi jot am depuis ba campagne bi commencé ñu ñu jot a ñu jot a ñu sànni xeer. Hmm. ñu lakk ak am na benn. Euh, maire xaw ma fu mu ne ñu sànni ko xaw ma lan ci kanam. Hmm. ñu ba bët Mm-hmm. donc loolu yëpp foog ñu koy foog ñu koy ñu euh, mm-hmm. suñ ko defee xelu ñëpp na dal campagne bi na man dem ci jàmm. Mm-hmm. waaw ba pare aussi di ñaax nit ñi politiciens yi li ñuy wax seen waxin mu ànd ak teggin waaye ñëpp ci gis seen bopp dégg-dégg bi mën a law waaw mais su dëgëree rek wër dañ ci jàmm dañuy dañuy dañ dañ dañ ciy tegg seen tànk. te boobaa politiciens yi sax ñoo ñoom ñoo ci du leen avantage parce que soo demee sax naan da ngay proximité naan la eh yéen daal yéen moom daal doy na waaw yéen daal jàmm bëggu leen donc loolu wax dëgg yàlla jàppalewul kenn waaw donc nañu xool suñu kàddu gi luñ luñ koy ñoŋalee ba vraiment euh, ñëpp ma ci gis seen bopp. Euh, docteur Pascal Oudiane aussi gis nañ ni wàllum transhumance ci jamonoy campagne bi nekk na lu doy wax parce que parti bii di Pastef ñoom dañoo dàqoon wàllum transhumance euh, dañu ne woon sax bis bu ñu jëlee nguur gi euh, nguur gi plutôt daañu xeex transhumance tey jii ñu gis en pleine campagne électorale ñu baree bari di jóge ci ku jëkk politique bi di dem fekki Pastef naka nga gisee mbir mi. ah loolu dañ koy ñaawlu bu baax. ñu ñaaw ñaawlu bu baax parce que soo wootee rupture maanaam changement ba pare nga dellu ci ci ci ñi fi nekkoon ci lu ñu nekkoon ay changement du am donc ku woote rupture daal képp ku jóge feneen ak leneen lu ko mën a euh, euh, soxal ñëw fekk si na ko war a ko nam parce que Afrique sax daan nañu wax ci téere yi que nit ñi suñu duggee ci politique seen biir moo leen tax a jóg lu ñu lekk rek moo leen tax a jóg waaw lépp lu ñu wax mën a lekk la maanaam sab lekk hmm. soo sabee rek lekk soo sabee am soo waxee am voilà donc nga donc kële ak kii nga xam ne moom lañ koy tudd ci loolu hmm. moom tey dem na am na fu mu nekkoon xamal leen lu bare jékki-jékki élection bi des tuuti mu mu dem féete fa dem hmm. waaw donc ñu accueillir ko te soo xoolee sax maanaam mu ngi ci convoi donc loolu dafa xaw a doy waar mënuñu ko rafetlu waaw transhumance daal war nañ ko mën a bàyyi comme ça sax politique ci boppam ñu mën koo rafetal waaw mais waaye li li mel ni ah, ah, rafet rafetul. a ah, kon tey jii yéen bu leen euh, Ousmane Sonko tàllaloon loxo du ngeen ko fekki docteur Pascal Oudiane. ah man man mii sama wàllu bopp peut-être que waxtaanuñu ci. parce que ñun coalition la xam nga. Mm. ah mais waxtaanuñu si te man gëm naa ne man mii sama wàllu bopp du ma ca dem. Mm-hmm. waaw parce que man mii dama am li ma li ma li ma boot. Mm-hmm. maanaam ab euh, xam-xam la bi ma jëlee ci téere yi ci jàng te dama jàpp ne Afrique fu ñu toll nii politique bi dafa saturé dafa maanaam dafa bëre. politique su bëree ci su bëree ci réew nit ñi duñu liggéey. Mm-hmm. waaw pour nit ñi nag. mën a concentré ci liggéey ji di wàññi politique bi maanaam ma ne damay andi beneen xeetu euh, euh, njiit bu ma bu bu may xëcc xëccee ci sociologie euh, mën koo teg ci askan bi waaw parce que sociologue am na nu muy gisee askan moom mooy liggéey ci askan moo mën a def askan moom moo xam nit moom moo xam lañu ñu bokk maanaam mbokk Euh, docteur xamu ko docteur ci hôpital xamu ko. Hmm. ñeneen ñi nekk ci impôt yi xamuñu ko nit ñoo ko mën a xam. donc loolu pour mu am pour ñu génn parti politique yi maanaam ñu jël ñeneen ñi ngi xam ne euh, bokkuñu ci parti politique yi ñu teg leen ci kanam ñu mën a liggéey donc loolu côté boobu loolu mooy nekk lu gën a fës ci euh, xam-xam googu ma bëgg a baaxee mais fu ñu toll nii. Euh, dem fekki camp au pouvoir la donc loolu man man du ma ci du ma ci dugg mais ba tey nii waxtaan waxtaanuñu ci suñu coalition donc loolu nekkul à l'ordre du jour maanaam. voilà waaw. merci docteur Pascal Oudiane ci tontu bi nga xam ne tontu nga ko suñuy laaj. jërëjëf jërëjëf Koumba maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu bu baax di ci invitation voilà may fàttali ni docteur Pascal Oudiane euh, sociologue nga nekk tête de liste du département de Dakar de la coalition Jëf Jël Takku Liggéey Sénégal jërëjëf docteur Pascal. jërëjëf Koumba.